dal leen ak jàmm news chaîne leen dara bañ leen a raw. AGT gis na ne daal ngir ñu amal dialogue politique faw mu am ay conditions yoo xam ne ku ne sa xel dafay dal ci waxtaan wi nga xam ne moom la njiitu réew bu senegal Macky Sall daal di woote fondateur bu think tank Africa Jom Center ci xarala yu yees yi rawatina ci Twitter la daal di xamle ne teg loxo bu jéggi dayo bi nga xam ne ñu ngi koy def ay ndaw fii ci réewum Sénégal rawatina ay taskatu xibaar lépp tukkee ci mbirum politique dafay xajamal démocratie bu Sénégal njiitu réew bu Sénégal Macky Sall bu namee ay waxtaan yoo xam ne dafay am ci xel mu tey faw mu daal di bàyyi doomu aadama yi nga xam ne dañ leen tëj kaso jamono ji làq leen jant bi te it di teg ci suuf lépp lu jëm rek ci arrêté journaliste yi leneen loo xam ne Macky Sall war na ko def mooy képp koo xam ne rek sakku na manifester maanaam wàcc ci mbedd bi wane sa xar ñu daal lay jox ndigal te du am benn sikki sàkk loolu nag bu amul dal mënuñu ko séntu fii ci réewum Sénégal teg loxo bi nga xam ne dañ koy def doomu aadama yi jéggi na dayoo muy militan politique wala sax taskatu xibaar boo xam ne dafa joxe xalaatam ci tolluwaayu réew mi ñu ne la ciix ne la ràpp ci kaso bi dafa war a dakk jamono ji fii ci réewum Sénégal njiital Afrikajom Center jàpp ne liberté doomu aadama yi dañ ko war a sàmm muy fàttali ni tey lu ëpp ñetti téeméeri doomu aadama ñuy ay responsable wala sax ay militants yu nekk ci parti bi di Pastef ñu ngi ci kaso yu Sénégal te loolu tegul fenn ci beneen fànn wi taskatu xibaar yi ñoom it sonnoon nañu lott nañu lool Pape Xon Ndiaye ñu gën ko xam ci Pape Ndiaye di taskatu xibaar nekk ca Walf TV tey ñu ngi ko tëj ràpp ci kaso bi Babacar Touré di journaliste d'investigation nekkit administrateur bu site lu tey jii woolu nañ ko ca division des investigations criminelles ci kàddu yoo xam ne da ko joxe. keneen ku ñuy xaaraat ci commissariat central muy Moustapha Diop directeur général bu Walf TV mu mel ni mbir yi abus da ci am kenn amatul sañ-sañ joxe sa xalaat ci mim réew te wolof Ndiaye dafa wax ne lu ëpp tuuru kon faw Macky Sall dellusiwaat xelam bàyyi ñi nga xam ne teg nañu leen loxo waaye itam dakkal wóolu bi nga xam ne mu ngi dëkke di ko def taskatu xibaar yi nga xam ne dañu wax am seen liberté def seen liggéey ni mu waxee.